seen seen grand laay wax quoi Modou Lo. jël booy bu saf boobu dëkk Pikine. waaw Ama Baldé doomi Faalaay. jàpp nga ni Modou mën a tër booy bi. non xam nga nag làmb moom <laughs> saa bu jëlee combat rek amateur yi ak supporters yi ak ñi la jàppale war nañu wax kii kat jël na combat. Hmm. mais man li ma gën a bañ ci làmb rek nga jël combat ñu ne cam. Hmm. man dama bëgg mbër buy jël combat jël combat boo xam te ne bii combat capital la. di nga entraînement di nga entraînement di nga teel a tëdd di nga lekk di nga nelaw lépp loo manqué di nga ko wuti. Mhm. deuxièmement mooy Modou Lo moom mu mbër bu ko jaaxal ci làmb ji daf na lu nekk soo gis mbër bu toll ne Modou Lo nekk roi des arènes. Mhm. li ma la benn mbër mosoo gis mbër bu nekk 102 kilos 103 105 teew làmb jëpp kit. Mhm. ñi mu dumale ñi ñu dóor leen daanu ñi mu mbot leen ñi mu caxaw ñi tëgal leen siis xam nga loolu moom ku ko def jëratul ñu lay tiital benn mbër. Modou Lo amatul lu muy prouver ci làmb lépp lu mu war a def ci làmb def na ko. mais moom Balla Gaye tey boo doon xool techniquement ku dàq bëre. Balla Gaye numéro champion la man nangu naa ne Balla Gaye numéro champion la mais Modou da ngay xool dayoo yi bokkuñ koy def ay cent quarante kilos ak koy def ay cent cinq kilos cent dix bokkuñ mais Modou dafa mën a bëre bala nga xam mu mën a bëre mu bëre mbër ba jaxasoo. ba sëgg sëggam boobu waaw laal ci kaw wàccaat ci suuf. te Modou bala nga ko ne mën a bëre nga jox ko mbër bu ni tey tey la koy rey. neex a faral dimanche. waaw man loolu dëgg si yàlla dama am. ferte ci Modou Lo lu mu dëkk parcelle. man goro Sock mooy dégg yenn interview sax ay mbër di wax ay diw moo dàq bëri walla man loolu gëw ma ko li ma gëm mooy parcelle ñoo dàq bëri. da nga dàq ni daal euh, Modou Lo dàq bëri ci riw mi yow loolu nga gëm. Modou Lo kenn dàq ko bëri parcelle boobu ji ba mu daj am ko dàq bëri Papa Sow.